madame la ministre damay euh, sant bi ma gisee ci financement ci budget 2021 bi ñu def ci dag de doji. ji muy financement 8 8 milliards et quelques boo xam ne bidd def madame la ministre may laaj ndax si réellement ci année bi dag de doji, ji danañ ko taxawal wala danañ commencé dag bi ndax dagu doo problèmes au régler problème département de Linguère ci emploi ci formation génie. parce que vous euh, xoolee ci programme PUDC dans le département de Linguère dañu bénéficier wu ay forages yu baree bari ci programme bi ba pare dem na ba nga xamné bo 10 km yo def da nga gis dëkk bu am forage ma japp né su dag boobu ñëwé dina favoriser élevage ak agriculture bi nga xamné département de Linguère soxla nako pour ndaw yi mëna tamit bénéficier wu ci emploi en tout cas dañuy sant président de la république ndaxte boo jëlee ministre sectoriel yu bari def na fa ay koppar yo xamné pour programme jeunesse bi la ku la na la président réussir ko dalay nax am réew xëyul sotti te ñëpp mënuñoo xëy emploi ñëpp mënuñoo xëy liggéey li ngeen def jéego yi ngeen def nit ñi mën nañ koo bañ a gis waaye jéego yu am solo la nañ xool démb fi réew mi nekkoon ak tey fu mu egg jeunes yi ñu ngi ciy gis seen bopp ñeneen ñi ñooy choisir boo xoolee enseignant bu dugg ci gaal dem Espagne wax dëgg yàlla bu ñu kenn waxati problème emploi ndax ki bàyyi di jàngale dem ba Espagne amoon na liggéey kon ñu ngi lay encouragé di la wax ne fi nga teg sa tànk foofu la benen bi dans le département de Linguère bëgg nañ tamit madame la ministre ñu gis la fa bu baax nga ñëw accompagner jeunes yi ñëw xam ñun Linguère ay ndaw yu am jom lañ ñoo ngi ci lépp ñu ci élevage agriculture nañ dem aquaculture madame la ministre loolu li koy favoriser mooy li ma la wax dag bi bu programme yi nga département de Linguère ñu ngi koy jooy ci ci ci emploi euh, leneen li ma bala ma koo fàtte sama tonton daf ma yóbbante tonton Seydou Diouf nee na mi ngi nuyu Koura Diouf PP PPJ ak Moussa Diouf Moussa Diouf euh, coordonnateur informatique nee na mi ngi leen di nuyu bu baax macha allah du ma ko bàyyi ndax mooy sama professeur. Euh, madame la ministre beneen bi may wax mooy dans le département de Linguère am nañ fa benn foyer des jeunes boo xam ne dafa délabré trop madame la ñuy laaj ndax mën nga ñu ci jàpp ñu réhabiliter ko. Euh, comme ni ko sama collègue bi waxone té def ci bu Linguère tamit defaroon ko mais defaroon nañ ko mais xamna naa defar bi dafa xawa dafa xawa am numu mu ñun jigen nga ñu te jigen buñ ko joxé dara ñun dañuy bëgg nga réussir té yow yaangi liggéey té boole wo ci ay wax nam nak bëgg na nga ñëw sama département wax ak jeune yi ñom jappalé lañ ci ay financement ndax jeune yi foofu dañu jambar ñun toujours dañ leen accompagner té dañuy gis ne lépp lu ñu leen dimbale ñoom seen bop même bu féké né dañoo jël sous fonds propre ñu jox leen ko ñom dañuy dem liggéey andiwaat ko kon bëgg naa jaay la sama département nga ñëw Linguère bo ñëwee fofu nga def fa ay formation yo ay euh, ay financement yo xamné yu mag bëgguma nak bu ndaw madame la ministre dama bëgg ñu am unité unité de transformation laitière man ci zone sylvopastorale laa dëkk te bëgg na am meew mi nga xamné mo am sama département muy voyager ci yenen pays yi di dem ñu jaay fu ne ci aduna bi gëm naa li ngay def bëgg nga ko ndax yaa ngi ciy am ay ay ay résultats kon dinañ la accompagner incha allah rabbi di la wax na la demal ci kanam yow yaa ngi ci yoon bu baax bi.